di remercier képp ku fi teew di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp sama xarit ci sama mbokk yi ñëpp déplacé ñëw ba fii euh, seet si ñu kon du ñu am lu dul ay remerciement tey la ñu am mais nekkul ne tey dañuy politique euh, dañ dañ koy jéggalu xam naa ne. mais nag dinañ dinañ sant Antoine tamit parce que nit ki soo xewlee mu jàppale la jàppale ci loo xam ne mën na am mënoo ko kon kooku mérité na nga nga nga félicité ko. ci lu mu def liggéey bu rëy bi mu def fii ndax ku nekk xam na ne euh, ren ziar 2023 bi Daaru Sam sécurité bi doy na sëkk ku mu neex mun nga dem fu la neex ba pare ndox manqué wu fi courant manqué wu fi kon loolu yëpp dañ leen ci euh, sant bu baax a baax aussi di sant euh, Asou mi nga xam ne sama xarit la sama doomu ndey la lépp lu ma xew la daf ci teew bu baax a baax di la sant yow tamit Arona di sant képp ku jóge Touba dakaar ba Saint-Louis maa ngi gërëm ñëpp di gërëm sama famille waaw ci la bokk xam nga ko woote gàmmu mooy lekk naan bernde loolu ci la bokk